Sunugal tey jii ci àllarba bi ñu nemmeeku fi ñàkk mburu ci Sénégal ñu dippee ko Sénégal sans mu nekk benn grève bu jëm ci ñetti fan képp ku yëngu ci wàllu mburu sax jamono gi ñuy wax ak yéen amaana sax kenn ubbiwul kenn jaay siwul waaye itam li ci gën a doy waar mooy boulangerie ñoom sax jaayuñu waaye itam defaruñu mburu benn yoon li ko waxal du lenn li nga xam ne mooy wàllum farine bi nga xam ne jamono gi ñuy wax ak yéen dafa faral di cher waaye itam prix mburu bi nga xam ne dañ ko bëgg a yokk te ñoom ci la ñuy bay waar ci lañuy daan seen doole pour mën a dimbali seen askan wi ñu koy ñaawlu loola mburu jafe Sénégal tey jii képp ku fi yeewoo amaana sax dañoo woor te weerum koor jotagul Sunugal 24 dem xool fépp fu boulangerie nekk def fa ab liggéey bu am solo waaye itam bañ fa demee képp koo xamante ne danga fay daan doole amaana sax xëy si wuñu ndaxte dañoo ànd ak tiis ànd ak njàkkare ndaxte kat lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu mburu jamono gi ñuy wax ak yéen amaana dafa jafe pour ñu gis ko lii di faga daga ak pain au lait moo gënoon yomb am waaye jamono gii ñuy wax ak yéen amaana moom moo gën a jafe am ndaxte kat lii di rusitu mburu sax pour nga gis ko dafay faral di jafe. su Sunugal 24 ba tey àndi ceeg ay satu xool boulangerie naka lañ toogee waaye sax boo fa duggee tiis nga fay gis ak selew gu ne mes ba tey ñu dajeeg benn ndaw muy jàng école. waaye itam du ñu wax ci li nga xam ni moo di wàllu mburu bi ndaxte mu ngi xamal ne mënoo jàngi école te ndekki woo ba tax na mi ngi koy ñaaw lu di lancer un appel au ministre ni mu gën a gaawee ñu jàppale leen ci. tur bi laay la. laay tey ñu fekk la tey fii est-ce que yow ndekki nga laay. ba léegi ndekkee gu de maa ngi nii ñàkkum pain moom dañ see war a wax waaw wallaay. yow bi nga xëyee tey jëm ci boulangerie di jënd pain tey noo leen gisee. dama fekk ñoom ñu tëj te loolu du yoon quoi dafa war a wax si loolu ci ñàkkum pain bi ndax état bi dañoo bëgg a yokk kii tamit boulangerie bi bëgg a yokk te loolu du arranger population bi pour population bi développer foog état bi mën a développer ba pour nit ñi mën a développer quoi moo tax. non du baax ndax nit ñi pain nañu yàgg ndekkee xamuñu leneen mënuñoo ndekkee soow mënuñoo ndekkee leneen pain rek nañ xam kon nañ ñu defaree suñu pain bi ñu jël ko waaw. mu wàññiwaat farine bi mu yokk ñii. loolu rek nañu am si mburu bi ñu mën a defaat kilo bi 150 fa yàlla. Sunugal 24 ànd ak yéen ci reportage bu am solo bi nga xam ne moom lañ leen baaxee woon tey jii ci li nga xam ne moo di Sénégal sans pain di lancer un appel au ministre waaye itam di lancer un appel au boulanger di leen wax ni yàlla na jàmm yàgg waaye itam lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu mburu nu mu gën a gaawee itam nañ ci taxaw ba def ci lépp lu ci war bu ko defee lépp mën a yemb. Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal point